baax a baax a baax waaye nag di leen ziar di leen déwénati di leen baalu àq bu baax di sant ci yéen ngeen baalu di leen nuyu nag eh, di ñëw tey fii nga xamante ni nii macha allah barkal la kër gi miin na Sénégal 7 waaye nag ñu seet si tey moom du ko ci senegal 7 macha allah ginnaaw bu ñu nuyoowee ba pare dañu koy nuyu muy ki nga xamante ni nii mooy eh, kii àdduna bëgg Sénégal bëgg ko. ñu koy seet si nag tey bëgg a bëgg bëgg bëgg a def ak moom ni ñu ko daan defee rek eh, ñu koy nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, Daba maa ngi nuyu waa Sénégal set yëpp di nuyu euh, tous les internautes de Sénégal 7 mu nekk site bu am solo chaque jour abonné yaa ngi yokku te gis naaw Sénégal set ay jàmbar laa fa séen ay jàmbar laa fa gis xale yi caméraman yeeg réalisateur yeeg monteur yi kon félicitations à toute cette équipe qui qui grandit de jour en jour et ça c'est important gis ñu baax laa fa gis 2017 il y avait 47 listes 2022 8 listes 39 listes de différence moo waral temps d'antenne RTS sax 5 minutes la ku si nekk te en 2000 euh, en 2017 euh, c'était 3 minutes par coalition. damoon nañu sa ba am le jour du vote, tellement qu'il y avait trop de listes, Donc, euh, 2022, il y a 8 listes, 8, 8 bulletins de vote. Bi mooy bu naataange askan wi donc kon dal rek moo mën a am ndax ñu bëri woon coow seppi na leen sànni fële donc euh, ñi des ñu dal lañu huit listes yi lu mu jàll ñu dal ñoo fa nekk moo tax ak yi ànd ak dal xam nga coalition su juddoo nekk coalition bu bees bu musta bokk ci élection mais ñi fa nekk yàgg nañu di bokk ci élection mais tête de bi muy Cheikh Alassane Sène dafa mus a intéressé ci élection ban loolu laa ko xamee donc suñu waxtaan yépp ci politique lay lay nekk 2017 euh, après les élections législatives buggoon na monter benn coalition bu mag ak Abdoulaye Wade man la njëkk a woo te maa ko gunge woon ñu seeti Ablaye Wade loolu 2017 la woon y avait Barthélémy Diaz Bamba Fall et consort là-bas Kër Madické Niang au à Fann Résidence kon Cheikh Alassane Sène dafa yàgg politique mais nag bii yoon nag la nekk tet de liste si euh, élection législative yi ñuy ñuy jëm ni mu nekk lu am solo mu nekk euh, suñu góor bu baax bu fas yéene dam assemblée nationale man nag déggoon nañ ma si liste yi si candidat à la députation ba jël samay photo daf ko si affiche ne ma yaay numéro 4 mais bi ñu demee temps yele y a tout juste jours ci lañ ma xamal que amoon na ay gàllankoor ba mu jeew ma nekk numéro 4 ma ne leen amul benn problème meroon naa nag au départ mais Cheikh Alassane Sène ci boppam dafa def délégation moom ak chef de cabinet monsieur jaw ak assan Sy Mansour ak El Ba ak Rakam mu bokk ak ndey ak baay ak tout son staff. ñu ñëw seet si ma fas ma seet si waat le 25 juillet la veille de mon anniversaire pour euh, sargal ma baalu ak si seppi bi ma seppi mais tamit kontaan si nangu bu ma nangu bokk si seen euh, si seen staff parce que actuellement je fais partie du staff de Cheikh Alassane Sène si élection législative yi ñu jëm pour ma yokk visibilité am te c'est mon frère il m'appelle ma sœur et quand il m'appelle ma sœur sama yaram day daw parce que dafay génn dans le cœur ma xam ne que je suis sa sœur kon sa frère su duggee si benn affaire il faut nga jàppale ko kon moo tax ma bàyyi yépp mu sedd donc euh, jàppale ko te ñëpp gis nañu maa ngi koy jàppale donc euh, côté euh, visibilité digitale donc maa ngi def li ma mën donc euh, puisque j'ai pris le le train en marche donc euh, ñuy ñaan nag yàlla euh, may ñu beaucoup de voix donc spécimen bi moom ñëpp gis nañ ko on est en campagne électorale léppay jàll donc di ñaan rek samay xarit yi képp koo xam ne da nga bëgg a ndeel bokk si ñiy dem assemblée nationale ñi di di encadrer député yi nga voté naataange askan wi. xam naa daal la joxoon nañ ma. numéro 4 mais finalement gis naa ne nekkuma si mi ngi jóge woon si choix bi mi ngi jóge woon si Mohamed Diallo mooy numéro 3 ba léegi si liste naataange askan bi moom si boppam moo ma ne ah bokkutuloo si liste yi ça n'a pas été un choc ça n'a pas un choc parce que dafa fekkoon man ma ne woon du ma bokk si élection législative yi euh, bi ma. yeewi askan bi goree ndax yi wàllu si Ndella Madior Diouf la jóge maa woo Déthié Fall ne ko il faut que toute l'opposition ñoo jàppale yeewi askan bi nga xam ne moo nekk numéro p numéro un numéro deux si élection locale yi ñu dàkkoo si ñëpp dàkkoo si donc euh, waxtaan naag ak ay ay dëmbooj waxtaan naag ak euh, ak euh, kii waaye sama sœur Aminata Lo Dieng waxtaan ak euh, Déthié Fall kenn opposé wu mais kenn newuma doo dugg dañ maa yéex a tontu tontu bi mooy lan notification booy jot officiel bi wane que yaa ngeeg ñoom ñu yéex ma ko jox ma ne waxoo yàqal nañ ma parce que du ma am temps dafaat coalition parce que j'avais perdu beaucoup de temps après ma am benn jaar-jaar bu ndaw Mohamed Diallo ne ma écoute eh, on te met dans l'équipe amoon na yéene daf ko xëy na dafa mujjewul sotti amu problème donc euh, amu problème j'ai 54 ans 2005 laa créé sama parti politique j'étais la seule femme tête de liste en 2012 2017 jàppale Mamadou Gueye CCN bu moo nekk actuellement maire de Thiaroye Jidda Kaw man yàlla daf ma daf daf ma may xolu xolu coach politique fin campagne man dina gën a parce que fin campagne ñëppay daw si Dakar xam nga gars yi dem na nañu si région yi uti ay voix non euh, dafa am ay ponkal nag ñuy teggi si campagne bi ndax ñi bokk si campagne bi bëri nañu bëri nañu de donc euh, waa Pastef bokkuñu si liste nationale seen liste seen ponkal yi ñu ngi woon si liste nationale ñoom ñëpp ñu ñu génne leen kon énergie bi nga xam ne dañ na doon def si campagne bi xam nga duñ ko si def dañ ko wàññi te yëpp gis nañ ko ñu ngi gunge gars yi moom suppléant yi mais des na donc Benno lancé wu si région yi ñu ngi woon si dans la partie nord Touba et cetera ñu ngi jub si nag si fin de campagne bi ñu jub si ñëwoon si Dakar loolu moo tax nee naa lu huit candidats si différent de 47 listes bi yoon huit listes la dafa tuuti donc euh, te. campagne bi c'est beaucoup plus digital que nekk si mbedd bi 2017 TikTok sa amul woon su amoon tamit siwagul woon 2017 la campagne électorale n'était pas digitale 2022 li doon am ci mbedd bi te du nekk archive moom la ñuy ne saraax dugal ci euh, digital bi YouTube, TikTok, Facebook, euh, Twitter. C'est une nouvelle campagne, c'est ça qui est à la mode maintenant. man euh, moi c'est Ndella Madior quoi moi je suis libre d'esprit damay ànd ak mag yi di ànd ak xale yi donc euh, jamono bu nekk ak lu muy laaj et je suis trop en avance trop trop trop en avance par rapport aux hommes politiques et femmes politiques et aux hommes de médias et femmes de médias trop trop en avance di dinaa lancer benn affaire des années plus tard ñu ne pourtant dee la da ko doon def voilà donc je, je j'accompagne Cheikh Alassane Sène de naataange askan bi le spécimen du mag taay di ko wone ah mu nekk euh, spécimen bu rafet couleur verte ak orange donc pour mu dem assemblée nationale pour équipe am dem assemblée nationale man su may jàppale nit du ma tricher su ma joxee sama kàddu rek pare naa si te su faa yu ma feeñee yóbbaale naataange askan wi fu mu ne nii ñëpp xam nañu naataange askan wi ndax vidéo yooyu nga xam ne actuellement ñu ngi si 300 ou 400 000 vues donc euh, ku ko seetaan yaa ngi gis naataange askan wi validé j'ai validé naataange askan wi donc xale yi ma bëgg ñoom tam dañuy validé naataange askan wi kon yóbbu naa naataange askan wi si plateforme digitale bi fu su nekkoon point en mi ngi si point 9 wala point 10 voilà donc day yokku quoi day yokku. et puis gis naa sa yeneen homme politique di di ma di ma toppandoo donc <laughs> donc voilà quoi. waa di nekk TikTok bi waa. gis naa gars yi dama tudd seen tur dinañ may buzz. voilà du ma tudd seen tur dinañ may buzz ndax su nekkoon ñoom di tuddu gis naa daal ay homme politique yoo xam ne euh, ñi ngi def waaye amuñu xorom. amuñu xorom non non non c'est pas la même chose. benn yoo tamit. xam nga man je suis tout le temps avec mon téléphone. tout le temps avec mon téléphone après damay damay sentir xam nga ngaa ko bokk naa si ñu ñu tax ñu jigéen ñeme ko benn jigéen ñi ñeme ko sali la toog ñu invité ko 2STV ma koy seetaan ñu teg incorrect et j'ai senti la musique incorrecte de ma chambre j'ai mis la musique à fond et j'ai dansé et ça fait le mu gore lool gore lool ñoo seet ma ba fii remercier ma man ak sama doom Moïse su ko defee jigéen da ngi ne mais ndee la ndee la ndee ndee la dafa bëgg ndaa Ngaaka Blindé mi ngi mi ngi mi ngi accompagner Ngaaka Blindé jigéen ñi ñeme ko dégg nga wax ja donc man damay taal un produit man lu ma taal rek lu ma lu ma laal rek day takk waaw day fekk ma sentir ko kenn fayuma si dërëm man ma sentir ma fecc donc am na artistes yu bëri ci ci temps yi damay teg musique am ma sentir ko ma fecc après man sama bopp damay fan sama bopp. dama kay seetaan di ko j'adore Titi man. Mm. Ah, ah oui j'adore Titi donc. mais ah parce que temps yi dafa dafa fireeku. waaw xam nga Titi dafa divorcé. Ah. su fekkee su fekkee si li ma gëm si li ma jot a dégg je vois une femme qui est libérée bu am délivrance xam nga góor dañuy fàtt jigéen ñi. dafa nekkoon si xat-xat ñu fatt ko téye ko nga xam titi bi ma gisoon daaw si fin coronavirus bi ak titi bi ma gis ren macha allah dafa libéré moo tax muy wëy elle est elle est heureuse on sent que kenn fatt ko on sent que parce que góor yi dañoo mun a fatte. dañoo mën da nga jàppoon ni titi dañ ko fatt. góor mais mais c'était visible. wëy am na wëy bu nga ne da nga foog ne woon du ma la bopp Moussa Baye. donc loolu donc y des messages yu muy délivré et c'est bien je trouve que c'est très bien. donc fippu leen def leen ni titi fippu leen xale yi nañu fi ñi ñu fatt bu leen nangu bu leen kan nangu ku leen fatt si biir kër fireeku leen libere leen pour mën a épanouir u soo leen wooyee rek day feeñ te day neex man intellectuel la intellectuel du xambataal ñoom ñëpp sama xarit lañu bi si njëkk mooy ku ma gawlo sekk nekk sama rak du sama xarit seytaaneeg ràmbaaj yi nag dañoo bëgg Séné dañoo bëri Sénégal seytaaneeg ràmbaaj dañoo bëri lu tuuti rek New York Viviane woy rek lay def Titi woy rek lay def Kumba Gawlo woy rek lay def ku si nekk ak sa tonalité waaw. ñoom bu ma tuddal bu ma tuddal loo non non non non non bu ma nee naa la man je suis une femme intellectuelle et je ne discute qu'avec ay intellectuel ñu baax yoo xam ne du ñu xam ba taal Viviane ku baax la sama xarit la musul toog ma toog Titi ku baax la sama xarit la toog na ma toog Kumba Gaw la ku baax la sama rakk la ñoom ñëpp dañoo baax mais ku su nekk da nga am public ku su nekk da nga sa public boo xam ne dañu war a dañu war a dañu dañu dañu war a respecter sa public accompagner la coacher la pour le bonheur des melomaan amuñu benn problème xam nga seytaane yi rek ñooy nekk entourage yi rek di xam amuñu benn problème c'est ma petite amuñu benn problème c'est ma petite démb rek mi ngi ma woo démb rek mi ma woo on se on se connecte tout le temps sur euh, sur WhatsApp mhm. benn problème seytaane yi ak rambaaj yi dañoo bëri Sénégal dégg nga wax ji nekkuñ dara lu dul lu dul lu dul jaxase nit suñ gisee ñaari nit ñuy ànd rek acca naka lañuy ñuy def ba jaxase mais kenn xaju suñu diggante kenn xajul sama digganteeg Titi kenn xajul sama digganteeg Viviane Viviane nee naa mosuma mosuma ko gis mos naa ko gis à la télévision et cetera dans les concerts et mais mosul toog ma toog ñu waxtaan ñu waxtaan yàlla euh, suñu chemin euh, ne sont pas encore croisés par contre Titi je suis allée même voir Titi en 2005 pour ne que dama woyee sama musique de campagne ah après mu ne man du ma def politique boobu ayee nga ayee nga ayee nga soo ayee mu neex jaa boobu wéyoon boobu laa bëggoon wéy ma ko. mu way la ko yow waaw. musique de campagne. mu wayal mu wayal ma ko musique de campagne. mu ne boobu comprendre wul mu ne moom du politique xamu woon sa Ndella Madior boobu moo ko ñëwoon seet si Maris. c' était en 2004 2005 c' était pour ma campagne euh, euh, législative de 2007. voilà donc 2007 ndeysaan parce que ti Titi bi woy boobu du woy boobu muy wax jàmbaar c' daf ma dama ko sentiroon comme ni ma sentiree. woyam bi bi ma fecc comme ni ma sentiré euh, bi gën a bu xew temps yi xaw ma sa tur bi waaw voilà voilà non non non boobu am na beneen bu si neex quoi bu may wéyit bu may fecc quoi moom lay fecc ah bon moom lay fecc ok man de parti parti parti aw bi moom a si neex ki kay awu parti boobu moom a si neex waaw mooy parti boobu moom mooy daaneel. defe naa du boobu de. boobu la boobu laay fekk nii. Hmm. man daal damay damay jékki-jékki rek déglu rek am parti bu ma neex ma ne ma foofu ma ne akum kaay kaay kay kaay kalal ma ko fii nag bii laa bii moom bii laa santi rek ma dóor dama lay won naka laa koy defee lépp laa lay won dama lay won naka laay tiktoké waa pour ngeen xam man naka laay tiktoké moi je suis médecin de formation jabar ji def na diagnostic bi nee na fekk na ko loos bi dam kon ça veut dire que dafa am benn traumatisme cérébral d'accord donc euh, fekk na ko bopp bi yëpp takk deret ak euh, truc ça veut dire que il a eu un traumatisme crânien donc li tax mu gaañu euh, c'est vraiment un traumatisme crânien un traumatisme des vertèbres voilà moom moo tax mu mu mu nelaw voilà donc il est rentré dans le coma donc euh, bon gis nga bopp soo amee traumatisme vertèbre mu am traumatisme rek c'est fini surtout en Afrique il y problème quelque part il problème euh, man sama xel dafa dal xam nga sama xel ki fan la dalee procureur lay dégg mu ne am na vidéo bu mu wane yëpp na ngi génne vidéo yi rek wax bi jeex comprendre s'il y a benn vidéo boo xam ne surveiller la tudd am déet. de moo tax ñu ñu mën a capter vidéo bi ñu naan am na lu mu enregistré. surveiller la mhm. gis kii ni wala mi ngi waajal loolu. Mhm. est ah dañ ko war a dañ ko kii dañ ko war a assister. dañ ko war a assister mu gañ bañ a gaañ boppam. Ndella que lii am yow yow yow teeyul sa xel xel mu tey amu ci. non euh, gis nga suñu on une bonne police on a une bonne gendarmerie suñu teyee nit. il est sous la responsabilité de la police et de la gendarmerie d'accord quand il y a mort d'homme il y a toujours un coupable toujours un coupable et le procureur est tenu de faire des investigations pour donner le nom des coupables d'accord li ñu jotagum dégg nee nañu dafa doon mbëkk et puis mu ne am nañu vidéo <laughs> kon wax bi kay warul sori les médecins vont faire l'autopsie et vont confirmer qui a traumatisme crânien et peut-être des fractures, des fractures de vertèbres. Et puis, et puis l'enquête va déterminer les causes de cet accident, c'est tout. Bon, je n'irai pas jusqu'à entrer dans ces détails. Par contre, je vais parler médicalement. Qu'il a reçu un traumatisme crânien qui est la cause certaine de sa mort. Parce que nit traumatisme crânien au Sénégal pour fekk ko da ngay am chance waaw malade boo xam dafa toog si si baat bi damm après mu jóge fi nekk coma pour mu génn si day dina jafe. torture nag dafa baaxul su fekkee dafa am torture dëgg dëgg dëgg le président doit prendre ses responsabilités et interdire ces tortures parce que torture baaxul ça peut arriver à tout le monde non ça peut arriver à n'importe qui su fekkee torture dafa am si police ak gendarmerie c'est à bannir c'est à bannir parce que torture. day am dérapage tànk bu damm soo ko tabaxee ñetti weer nga wër soo ko opere daf si feer motul weer nga wër waaye traumatisme crânien pour nga génn si da nekk jàmbaar dëgg am na yenn traumatisme crânien yoo xam ne fii si Afrique da nga siy génn avec beaucoup de difficultés arrêtez c'est c'est je ba pare c'est au président de prendre ses responsabilités quand on fait des enquêtes pour déterminer la cause de la mort donc euh, il faut il faut que il des sanctions gis nga fi mu nga bëgg a xuusloo falaay falaay egg je pas de Pastef kon mënu ma waxal au de Pastef Mamadou Seck est un Sénégalais est un frère yàlla na feeñ fa laa yem yàlla na feeñ da ngeen ay def évadé wu yàlla na feeñ yàlla bi bi nga ko gis si morgue mais yàlla na feeñ ku évadé wu da ngay feeñ tôt ou tard da ngay feeñ mais feeñu morgue nag maar day taali lu gën mooy feeñ ñu retrouver ko quelque part au Sénégal bien vivant et bien portant mais bon tout ce qui est Yewwi je me du ma si du ma si taawi quoi parce que bokk ma Yewwi maa ngi maa ngi naataange askan wi non non mosuma faa nekk dafa laa bëgg a nekk fu ne ni naataange askan wi moo xew maa ngi naataange de. naataange maa doo leen xeexaat kon. maa ngi naataange dépassé na nga loolu jubóo nañu. maa ngi naataange waaw. ku si nekk am nga problème ak ay coalition loolu loolu ak ak politique ñoo ànd. am sol si am solo de je suis très bien dans ma peau. j'ai aucun regret. te gu sama kanam bii doo fa gis benn stress moo tax may fecc. ah non <laughs> pourquoi stresser kuy stressé du fecc. man je suis bien je suis happy. épisode par épisode bés bu nekk ak lu si xaw coalition bu nekk ak lu si xew aw nee na seen seen seen hmm. fenn de naataange tojul fenn si xam dara en tout cas daal Alassane mi ngi toj euh, région yi hmm. caravane am ñëpp gis nañ ko proximité mi am solo le khalife général des Mourides balaa muy euh, balaa muy dem ni nga koy waxatee Paris donc euh, bokk na si ñu mu mujjee recevoir donc euh, il est en train de faire le tour du Sénégal mu nekk ku baax lool vraiment kon le jour du vote le 31 ñu ngi ñaan askan bi gëstuñu bu baax ngir mu mën a dem assemblée nationale ak tous ces candidats à la députation. su ko demee sax dinaa leen woo. ba ñu wax ñu euh, fan la ñu toon dinaa leen woo mais da waa naataange sim dinaa leen woo sa kanam waaw dama lay won naka lay tiktokee sax sa caméraman bi na mën a filmer rek tiktokee man tiktok politique ma ne man tiktok politique lay def tiktok politique no stress waaw di ñëpp a xam bi yëpp xam nañ que maa ngi naataange maa ngi jàppale naataange askan dama ñàkk ki yaan ku àndal da nga moo defoon euh, toggi na gex kan moo accompagné ma di Kenya ba fu mu jàll xale yi génn maa ne si ginnaaw maa ne woon si ginnaaw man dama je suis un bon coach xam nga duma ko tuddee wor man léegi dama mag waaw dama mag damay dama nekk si benn phase boo xam ne ku ma tooñ baal naa la foofu laa toon amoon na période yoo xam ne am na période boo xam ne dama doon defante dépassé naa stade boobu léegi mag laa sama sëti sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sama sëti ñoo may filmer léegi di kon vraiment euh, Daba booy bu mu nelawee porter plainte dem si procureur dem Maroc ñibbisi naa tombé si lo kii législative yi damay seeti procureur pour mu continuer affaire yi. kon ah, kon yow suivre loo ma bañ a porter plainte. plainte baa ngi devant le procureur de la République joxoon na ma rendez-vous sama mardi mais il dama doon dimanche bi laa dem Maroc mais là du ma mus a ba du ma mus a ba du ma mus a ba ñu dédommagé ñu dédommagé kii ñu xam la cause ñu fexe ba loolu dootu amati ñu fexe ba hôpitaux yi ñu gën leen développé service d'accueil bi ñu gën ko développé ñu dédommagé famille Daba Boye parce que ma soutien famille la loolu rek laa si jublu loolu de la santé damay jàppale waaw day dala da di permettre ñu ñu xoolaat seen service d'accueil et cetera donc pour revenir à cette histoire de de Yaay Fall il elle a repris elle a repris Demba mi ngi ñëw Demba Touré actuellement mi ngi Kidira mi ngi si yoon bi et cetera et ñoom ñëpp dañuy nee naa leen kër gi seen kër la réeroo réeroo du du du du ñàkk egg na ngi benn stade boo xam ñoom ñëpp a màgg bi ngi nekk si kër gi. xuloo dafi doon am xeex dafi doon am mais léegi ñoom ñëpp màgg wax boobu dama ko gëj a dégg waaw ku ku ñu fayu rek ñibbil nga bañ a toog benn fan voilà donc xam wax yooyu wax yooyu daf may xaw a sa agité parce que ñu nee sa employé yi doo leen fay ma ne lañ leen fi def fi mu fi def benn fan est-ce que ñoom fay nañ ma communication ma def si ñoom li ma def si ñoom ba taale ñu tàkk ba ñu reconnaître ko ñoom ñëpp est-ce que fay nañ ma ko millions yu fi jëlee ba ñuy tabax ñoom ñëpp seen kër gars yi nañuy bàyyi dañoo soxor. ñi ma àndal ñëpp tabax nañu seen kër te maa te coaché te immeuble ngi tabax comme man ni ma tabaxee la kon waxu seytaane ak ràmbaaceeg dëmm yi nañu arrêté seen wax yooyu te mu ngi continuer ndax ndeela du fay te ndeela day fay ba wis coaché ba nga tabax sa kër coaché ba nga am say oto fii ku fi jaar fii ku fi jaar rek da ngay yokku. maintenant dañu nekk si benn société boo xam ne ñi jàngu ñi dañuy bëri te soxor te susceptible te di yàq mooy ni may faral di wax rek seytaane ràmbaaj donc dañuy ñëw rek ñee la su ñëwee ñee la au ñu taal la dañuy seet naka lañ lay mën a yàqee xale yi dem si yeneen yi yi dem si yeneen rajo yëpp dañuy dellu ci ndax li dañuy dellu ci que li am safir amul feneen man foo gisee benn expo Sénégal set yow di nga jël benn gisaane jox ko quatre de temps muy set yow mii sa amuloo quatre de temps chaque jour nga am quatre heures de temps yow Daba Thiena amuloo ko quatre heures de temps ñoom nag dañ koy am dañuy am sa cinq de temps parce que dama dama leen di bàyyi ñuy wax di set durant quatre heures de temps après léegi comme que digital dafa yokku ñu amati encore yeneen ouverture su ñu demee feneen nag ñoom ñooy fay pour visible cinquante mille cent mille deux cent mille trois cent jëm kaw mais ah madame Della kon kon madame Della ñoom mu ñu doon perte ndekat yoo soo demee feneen danga koy fay pour ñu seet la kon ñun ñu dañu doon tooñ de xaar ñu delluwaat seen madame Della ñëw sukkuraam sukkuraam ma leen kër gaa ngi ni seen kër ñu dugg wax boo doyal ñu xam ne Safira ko yor waaw Safira ko yor foo dégg coow xaalis a nga fa mooy xaalis bi ngi seen ba Ndella di yore xaalis bi ngi seen ñu bugg see am te duñu sonn ndax dañuy seen xaalis foo dégg coow rek xaalis am na fa mais xaalis dafa am nu mu war a demee voilà nu mu war a demee soo ko liggéey ñu ñu kii la mais su fekkee bëggaloo ko liggéey bëgg a saboté ma defoon teg yow ba mu saf-saf waaw waaw mais soo soo sabatee sama liggéey su ma la doon fay tey tey tey tey tey ma tëbal ko weer waaw noo ko noo ko liggéey rek noonu la koy joxe su fekkee da ko liggéey ak ak aal liggéey correctement ñu dóor mu daanu mais su fekkee da ko liggéey ak sabotage ma saboté la si paiement bi c'est tout mais xaar foo dégg Safir liggéey na ay milliards Safir dafa liggéey ay milliards saa yam ko tuddi nag impôt yi taxaw di yuut ma ne leen nag li ma leen jox versé si TVA kenn xamul mu toll ma ne li ma leen jox versé leen ci TVA ñoom ñi ma verse sax xamuñu woon ko damay versé TVA versé la plus de cinquante millions de TVA ëpp na soloolu loolu parce que chaque cinq ans ba pare après dañ koy seyal chaque cinq ans dañ koy seyal donc impôt lu ñu leen di conseiller mooy ñuy def ay séminaire de formation il faut pas que ñuy caché wu di ñu nul n'est censé ignorer la loi muy ñun médecins yi muy yéen journalistes ak chroniqueuses yi muy ñeneen nag ñeneen ñeneen ak ñeneen ñeneen ak ñeneen dañuy laaj coaching côté fiscalité dañuy laaj coaching côté fiscalité loolu nag amul te ñoom dañ ko war a di def su ko defee recettes yi day gën a bëri su ko defee retournement de chèque parce que ñun ñii di fay dañu war a retourner ay est-ce que xam nga loolu chaque année dañuy war a retourner ay si kaw ñu def suñu déclaration correctement et pour nga def sa déclaration correctement il faut que mu am benn coaching comptabilité coaching fiscal te loolu moo li permettre xaalisu état bi bëri loolu may permettre tamit ñun ñuy jox état ñoom tam ñu ñuy delloo suñu li ñu war a chèque bi ñu war a li ñu war a delloo. loolu c'était un petit petit petit petit passage de fiscalité euh, dans dans dans cette émission. <laughs> entourage yi rek ñoo leen di jaxase entourage fii ku fi taxaw sa entourage moo la taxawal ku fi daanu sa entourage moo la daaneel muy politique muy milieu ni karaté euh, showbiz. ak loo munti gis waaw ku fi taxaw sa entourage moo la taxawal ku fi daanu sa entourage moo la daanu kon lan la ñuy conseil nit yi rek toogal waay kon lan la ñuy conseil nit yi mooy fexe ba ñuy euh, coacher correctement seeni leader ñuy coacher correctement seen star seen vedette su ko defee mu tranquille gis nga ku ñëw di la assister ku ñëw di la coacher waru la agiter da la war a dalal pour nga am inspiration pour mun di créer di créer di créer di créer y a aucune différence entre les stars politiques et les stars dans les business amul différence ay nit rek la ñu ñii dañuy agir dans la l'organisation de la société qui est la politique ñii di agir sur la production musicale euh, pour euh, soigner les gens, puisque la musique soigne. La musique soigne. C'est la musicothérapie dafa am fi ñu tëggee ça adoucit les mœurs. La musique, ça calme les nerfs. Quand tu as envie de de de, de te calmer, tu mets une bonne musique. Donc euh, teg leen bunti bu waay. Tu mets une une une bonne musique pour euh, pour euh, pour pour être calme. Mm-hmm. Hein? Et ça c'est important. C'est très important. Donc l'entourage des, des, stars euh, dans le business ont un, jeu, un, rôle très important à jouer pour calmer leur star et ne pas agiter leur star. Et ça se répercute sur le produit. Voilà. Ça se répercute sur le produit. coow day am ñu taawi ko daf ko épisode 1 2 3 4 jëmale man dama si tombé rek ma si tombé parce que je suis tout le temps dans les réseaux sociaux gis naa Omar woo ndeysaan di wax nga xam ne kii li muy wax ñor na ko te nakari na ko après gis naa benn single bu génn mu ne ndeysaan te pourtant ñi ñoo doon ànd nekk mburug soow dañ leen war a jubboole waaye ndeysaan mais waruñu leen di xamba rek di xamba rek di rek j'ai pas suivi je lu ñaaw dama ko diglu bu baax mm-hmm. dama doon nelaw rek di seetaane nag ay portion lu muy jàll ay portion et puis jamee ah dañuy réeroo rek jubale leen moo gën affaire yi quoi vraiment gis naa daal ay contrat dégg naa ay histoire de contrat et tout sax mais nit du bëgg a bañ. kon yow pare nga dee la pour tey jii buñ la ci woon dox ci ay jéego yoo xam ne day indi jàmm. maa ngi si beneen gaam. yaa ngi si beneen gaam li jëm ci maa ngi si beneen gaam du duma du ma fekk histoire sax hmm. maa ngi si yow tamit maa ngi si beneen level. yaa waaw mais maa ngi si beneen gaam xam nga si di sama doom la Omaro sama munuma sama xarit la xamante waa ah si di si di kat dégg nañu set 2 def benn mission bu neex fa la jóge tàkk man ne lu ma laal damay yokk munuma ne maa ko taal ndax dafa am coach mais mais mais bokk naa suñu ko poussé damay tax damay man ku ma laal ñu ñeme la absolument dugg rek si internet nga bind Sidy Diop ak Ndella Madior Diouf nga xool lan nga fay gis boobu commencé guloo émission yi. non non non commencé guloo émission boobu 2STV la woon duggal internet nga dugg Google def Sidy Diop ak Ndella Madior Diouf nga xool bokk naa ñuy gestu Sidy kan mooy Sidy waay Ndella Madior kan lay fekkeel ni maa ngi fekk Sidy Diop de si duggal si YouTube maa ngi fekk Youssou man ku ma fekkal nga tàkk. doomu buur la. Ah. ah man ku ma taal nga ku ma feccal da ngay tàkk rek jëm kanam rek xam nga yow danga baax jëm kanam rek waaw yow da man man ku ku jublu si man tàkk lu tax gars yi di ma wër ma ne lu tax nit yi di ma wër ku jublu si man tàkk loolu nag yàlla ko def xoolal musique bi ma bi ma bi ma musique bi nu mu tudd am na benn benn kii déedéet ba boxum musique titi bi beneen bi gën a siiw bi fatal ma foofu xam nga man xaw ma ku ko wëy moom laa lay may léegi <laughs> fatal ma foofu dama si tombé dama doon seetaan seen TV ma gis xale yi di foo ma ne waaw yow musique bi parce que damay sentir musique et sentir et ça c'est pas mal parce que c'est assez original mm-hmm. après man chaque jour su ma yeewoo jàpp forme def sama huit heures de sommeil je mets la musique à fond et je fais mon snap parce que ça ça fait partie de moi pour ñu ma xam dinaa la ko defaral wan la naka laa koy multiplier rek laa soxla ak benn support ma tegale sama téléphone si biir dóora la fatal ma kan moo woy fatal ma foofu. benn xal benn danseur la sama doom nee na benn danseur moo ko woy kooku nag maa ngi xaar mu ñëw mu ñëw mu ñëw nuyu si de. ah comme ngaa ko blende ngaa ko blende dafa ma ñëw remercier maa ngi ndey la maa joor ah su ma seet kan lay seet man maa maay Ndella Madior su ma tànnee sa sama rab su jubloo sa musique santal yàlla cinquante mille cinq cent mille vues uh-huh. en vingt quatre en en quarante huit heures léegi mu def un million de vues léegi mu def un million de vues soo yaroo rek man man soo yaroo rek xam nga man nit ki da may jox cër na sincère nag nit ki soo ma joxee cër yaa ma moom mais soo fekkee joxuloo ma cër dama je mets une croix c'est tout aussi c'est aussi simple que ça. voilà c'est aussi simple que ça il y a des journalistes Ousin Ousin Ousin il est très gentil. waaw waa seen seen web tamit baax ñu baax lool tamit euh, euh, waa TFM euh, Kakatar donc Bijou Ngoné donc c'est des personnes ñoo xam ne dañ ma jox cër. waaw man soo ma joxee cër ya ma moom même su ma sonnee dinaa fexe nu may retaper sama bopp ba ñëw def sa émission. voilà et ça c'est très important. waaw voilà man damay fatt turu damay fatt fattal ma foofu damay fatt turu léeg-léeg gars yi seen TV woo ma ndee la yaa fi sës ma ne ah il est 19 heures pour une émission de 22 heures ma ne ah gars yi dañ ma bëgg ma fatt benn turu tey de xam naa dafa am benn benn invité bu leen war à la dernière minute xaar ma dam sagal leen <laughs> ma dam sagal ñëw toog fekk c'était vraiment pas prévu mais bon waaw yéen ñëpp damay fatt seen trou rek yéen ñëpp ma yab gaa yéen ñëpp da ma leen di fattal trou ku am invité bu mu manqué rek mu ne xaar ma dem si Ndella Madior su suma ko baabee rek mu ñëw fatt trou gay ngeen fattal ma foofu moo tax waaw man dama leen di fattal trou rek ku si manqué invité woo ma <laughs> fatt trou xaara ñu dóor xaara ma ñëw dóoral la benn jottali ma sama téléphone bi nekk sama sac bi nga installé ma léegi ma defal leen benn moom na na ko filmé na correctement waaw dama bëgg mu filmé ko correctement gros plan bi na jël lépp na jël lépp ma fatt foofu <laughs> non beneen bi xaw ma beneen beneen bu bi am na téléphone am na beneen boobu moo am snap bu baax bi waaw. baa xam nga sama sac bi de. ku ko sàccoon moom am xaalis bu bëri. la laa illaa xel ay iPhone 1 million 300 muy ñaata 2 millions. million millions 600. ak benn bu 800000 muy ñaata. Ah, muy ñaata te ak benn bu 500000 muy ñaata. si biir saak bi. waaw bu ko kenn sàcc de. Ah, ne woon nañu coppite de yóbbu saak beeg euh, bijou yi fa nekkoon ak euh, visa 10 ans ba. benn kenn xamul. daa ñëw rek jël dañ ma boot dañ ma ëffaloon nag gars yi di. <laughs> jël di saak bi rek yóbbu. sa téléphone yeeg tablette yeeg la ñuy non damay jóg. damay jóg tamit yooyu sooy jóg moo tax ma ne na ma filmer correctement ngay jóg puusal balaa puusal na côté bi rek puusal côté balaa ngay jóg. waaw kon euh, mbokk Sénégal rek mu bi nga xamante ni fan mhm. naka laa koy defee. ni muy TikTok yi. waaw Ndella ñun yow maa ngi ñëw yéeg déjà bi ma def maa ngi numéro P. sur euh, 8445 vidéos en 24 heures maa jël pay ci ni ma koy toppandowee ci ni ma koy fekkee waaw dam dam leen di wan sama univers rek ma quand je réveille je danse et danse bi nag day joxe message waaw Sénégal set waaw waaw waaw sekk nañ ko moo tax sekk nañ ko moo tax léegi xaaral sekk nañ ko moo tax utiliser ce son cey sama sët bi suti na ma moo may defal filtre yi de Victoria waaw xale yi ñoom ñoom ñoo mun affaire léegi su ma ko installé ba pare voilà doucement donc tu peux choisir beaucoup de filtres ah filtre yaa ngi ni donc si TikTok un petit cours cours bii couleur la xam nga bii tamit c'est pas mal mm-hmm. donc je vais voir je suis en train am na boo xam ne sama sama sët bi moom a koy defaral bii dafa xaw a xale xalewe bii je pense que je pense que bii la bii mais bi bi may def temps yi de moo dàq bi attends je vais voir je voir weex bi ah, bu weex bi de laa bëgg waa xamatuma fu ma ne pourtant bii tane na mais ba léegi des na Victoria de moom su su nekkoon fii de réglé ko xam nga xale yi léegi ñoo ñoo mokkal affaire yi xale yi ñoo mokkal affaire yi de. bi da bii tane na daal bi may def temps yi moom du bi du filtre bi non du filtre bi Victoria de en une seconde mu génneel la ko. en une seconde mu génne la filtre bi parce que filtre bi da si am solo filtre bi da si am solo xaw na xaw na ñu bi xaw na ñu rog bi mm-hmm. mais on na ñu bi voilà yow da ngaa bëgg a siw si biir affaire bi yow da ngaa bëgg siw si affaire bi <laughs> kii bëgg siw si affaire bi lii lañuy ñuy dóor nii la nii la man kay moom bàyyi ma rek bàyyi rek ma dóoral la bu ma bu ma freiné bu ma fatt de léegi bii lañ koy dóor xam nga bii mooy naataange voilà spécimen xaaral ma ma dóor ko ñu commencé xam nga démarrage bi dafa am solo xaaral ma jàngale tuuti parce que première vidéo bi xam mooy jàng kon soo bëggee spécimen bi jàll ñi ci xam ne que Ndella Madior day soutenir naataange askan bi sooy démarrer nii ngay def ku mu nakkari na topp fële du noonu ku nakkari dana topp fële ñun ñu ngi man de naataange askan bi laay soutenir Ndella Madior soutien naataange askan bi ñu tàmbali vote. Fatal ma faw waaw de lay def waaw waaw te bii sama neexuma parce que filtre bi ma Victoria di defar la moo neex publicité léegi mu jàll. waaw su jàllee ñu bàyyi ko mu dund dundam. du ñu bàyyi waaw mu dund dundam son parcours. maanaam li nga xam nga am na ñoo xam ne. dañuy def 6 mois doog a nekk si meilleure vidéo yu yu def. Euh, fatal ma foofu man dama ko def 24 heures nekk nekk meilleur. 24 heures 24 heures nekk nekk meilleur léegi ki génne fatal foofu moom ngay wax message ni ko pour mu waa ki ko ki euh, c'est la moindre de corrections. ku la ku la ku la ku la ku yokk sa buzz da nga koy ñëw rek teral da nga koy ñëw pas teral da nga koy ñëw remercier comment fi fi Ngaaka Blindé waaw loolu loolu reconnaissance la quoi yaa ko téye nii sa diggu loxo gars yi de gars yi de lool la ñuy wax waaw donc naataange rek waaw naataange askan bi fas yéene nag fatt turu yi dégg nga wax ji kon gis naa ne ñëpp ak adopté waaw kon Cheikh Alassane Sène moo ko yor kon Cheikh Alassane Sène na fatt foofu <laughs> te naataange askan wi askan wi naataange la ñëpp di ñaan. mais kër réew naataange la ñuy ñaan waaw kon yéen seen seen seen seen seen Alassane Sène da leen yéene jàmm bëgg dëkk bi naat waa kon ku leen ne naataange rek askan bi ne xama ne kii ku ku baax la waaw kon man lañ leen indiloon tey waa Sénégal 7 ak Ndella Madior Diouf mi nga xamante ne heure bu ñu ko soxlaa dañuy ubbil buntu yi mm-hmm. Mm-hmm. rawatina man Daba Thiéna muy sama sœur di sama mm-hmm. xarit heure bu ma neex laa koy woo heure bu ma neex laa koy tàggatoo rek waaw waaw. ñooñu ñu ngi leen siiwal ak Ndella Madior